asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki téléspectateurs yi bàyyi xel seen chaîne Assalaamy TV ñoo ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen ziara di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké xalifa général des Mourides di ko ñaanal yàgg fi loolu tànd ak di ko ñaanal mboolem kilifa diine yi waaye diko ko ñaanal ki nga xam ne moom moo di Serigne Abbas di xalifa borom Daarul Moxti moom it ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu tànd ak mbokk yi ñu ngi fii ci Daarul Moxti tey yem boog euh, dimanche 21 avril 2019 di fukki fan ak juróom ci Chambane 1440 ginnaaw gàddaay yonent bi salallaahu alayhi wa sallam di màggal gi nga xam ne mooy màggarul daarul moxti màggal gi nga xam ne moom lañ jagleel maam Thierno Birahim nekkoon rakk ci Cheikhul Khadim maam Thierno Birahim nekk jëmm joo xamante ni mi ngi gën a àddina ci atum 1862 ci Poroxaan mooy jamono bi nga xam ne Serigne Momar Anta Sali mi ngi nekkee ci euh, wet googu nekkoon fa ki nga xam ne moom moo di Maba Jaxu Ba moom nag ki nga xam ne moo di waajuram wu góor di Serigne Momar Anta Sali waajuram wu jigéen di soxna Fatou Issa Diop mu nekk jëmm joo xam ne ku déggaloon Cheikhul Khadim la nekk rakkam ndax ki nga xam ne moo di Serigne Touba bi muy dem ci géej gi ci atu 1900 1895 moom la dénk ñi nga xam ne ñoom ñoo di njaboot gi mu yor leen waaye bi ñu bisee ci atu 1902 lépp loo xam ne moom la ko dénkoon mu tegal ko ci loxoom tey mu def ci liggéey bu am solo bës boobu sax moom la ñuy màggal fii ci Daarul Muxti mi bës bi nga xam ne ci la Serigne Touba daje woon ak maam Thierno bi mu jugee ci yoonu géej gi nekk màggal goo xam ne ay junni junni nit wala ay millions yi taalibe dañuy bàyyi ko fu ne ci biir réew mi ci bitim réew ñëw fii ci Daarul Muxti ngir teewee li nga xam ne moo di màggal gi. mbokk yi fi nga xam ne moo di euh, suñu ginnaaw mooy barab bi nga xam ne fi lañ denc euh, maam Thierno Birahim bi mu génn àddina ci atu 1943 ci dëkk bi nga xam ne moo di Daarul Muxti di dëkk bi nga xam ne mi ngi ko sanc ci ndégalu euh, maagam ju tedd ja di Serigne Touba ci atu 1912 mbokk yi ñu dugg ci bërëb bi rek xool siyaar yi nga xam ne moo fi am waaye taataan li nga xam ne moom moo di ay réaction ay taalibe yu muy euh, li nga xam ne dafa jëm ci màggal gi waaye roy gi nga xam ne war nañ koo roy maam Thierno ndax déggal goo xam ne déggaloon na ko am di Cheikh Khadim déggal googu nag ak fonk kilifa nekk loo xam ne dafa xaw tumuraanke jamono bi loolee dañ laaj ñi nga xam ne ñoo di mbokk taalibe nan lañ ko gisee ak ban jàngat lañ ci am دنيا سرون كلك ديال خير الورى ومكة دون كجال ويلا يبو أحمد المكي دندس يبو أحمد المكي باي سنو مام تيرنا إبراهيم كلي دخادم تلي مخلوق yooyu jëmm ju tedd ji nga xam ne moo taxoon tey ñu daje fi man nag maa ngi fi door a ñëw di fi màggal si tey ji ngir lu baax li nga xam ne dégg naa ko ci boroom daaru moxti ci ni mu doon dundee ak sëriñ bi ci doxalinam ak ci ay waxam nga xam ne euh, murit bu ne war naa roy ci moom ci jikko yu rafet waaye ci ay melo ak it ni mu bëggee woon sëriñ bi loolu moom war nañ koo roy ci moom bu baax eh, yu rafet rafet yooyu daal moo tax man tey jii ma am ak yéene ngir ñëw fekke xéewal googu ak taw feex googu nga xam ne eh, sëriñ bi képp koo xam ne gërëm na la rek eh, lu mu tuuti tuuti rek tawfeex googee da ko ca am yow mi nga xam ne yow la sëriñ bi gërëm gërëm loolu daal lañ bëgg tey jii mu gottee ci ñun daal moo tax ñu ñëw fi bés bésab tey bi. waaw maam Thierno ni mu doon dundee sëriñ bi moom yéeme ndax it euh, boo déggee sëriñ bi di jàngale di wax naan di noyal say wax ci képp koo xamante ne nii nit la nekk na loo xamante ne bokk na ci jikko yi nga xam ne tànn nañ ko waaye it maam Thierno ni mu doon doxee ci li sëriñ bi di jàngale ci euh, melo yu murit nga xam ne bokk na ci siddaxa baag dëggal baag wóolu gaag nga xam ne heure bu la digalee dangay ngay daal di daw jëm ca lam la digal waaye bu la tere it da ngay daal di daw lépp loo xamante ne ni euh, tere na la ko loolu it war nañ koo mën a roy ci maam Cheikh maam Thierno bu baax a baax ngir euh, sax ci ndigal daal bàyyi tere ndax lépp euh, boo déggee sëriñ bi naan leen bu leen def leen loo xamante ne àndut ak ndigal bokk na ci loolu kon war nañoo roy ci moom bu baax a baax ndigal jëfe ndigal bàyyi tere war nañ koo roy ci moom bu baax a ah, murit it war nañ cee mën a royaat bu baax a baax ci lépp loo xamante ne nii war na war nañ koo def ñu laaj ci ndigal ba jot ko ndax sëriñ bi nee nañ mos nay misaal mag ñi ci njaareem nee na maanaam eh, lu ànd ak ndigal ak lu àndut ak ndigal nee lu ànd mu ngi mel ni eh, kii maanaam mu ngi nee na lu ànd ak ndigal mu ngi mel ni fajar boo xamante ne day xotteeku nee na ci leer rek la jëm si waaye nee na lépp lu àndut ak ndigal nee na lëndëm ak timis la rek nee na lëndëm ci lëndëm rek la jëm kon ñun murit yi mu fekkee bëgg nañoo jëriñ ci sëriñ bi lépp lu ñuy def na ànd ak ndigal bu ko defee daal ndigal loolu mooy lamp bi nga xam ne moo ñu xel di niital lépp loo xamante ne nii lëndëm lëndëm la te lépp loo xamante ne taq-taq la it danañu ko génneel bu baax a baax. mooy bisum maam Thierno bi rek maam Thierno Ibrahima nga xam ne dafa ànd ak magam liggéeyal ko ba mu wàcc am ngërëm te rek mi ngi fi ndax borom daaru gi dafa liggéeyal magam ba liggéey bi nangu looloo tax ma ñëw fi waaw loolu nag moom tumuraanke na jamono ji nag moo wëlbatiku ndax bu njëkk rakk da daan topp mag mag topp waajuram waaye léegi loolu dafa bi ndax jamono ji daal wax dëgg yàlla doy na waar daal jamono ji doy na waar doy na waar waaye nag ñi ngi ñaan rek ci yàlla ak yonent bi ak Sëriñ Tuuba ñu fexe ba dëpp leen yàlla na yàlla na leen yàlla dëpp bañ dellu si waat aw ci yoon maa ngi jóge ba jama ceen booru ngaay mexe waaw ma ñëwoon fii màggal si siyaare si ah, di sant nag yàlla bu baax bi ma indee ba fii ci bërëb bii ma ñëw siyaar si waaw kilifteef gone yi xale yi fonkatuñ ko léegi ndax te maam Thierno dafa fonkoon kilifteef joxoon boppam Serigne Touba lu mu ko musaan a digal ca lay nekk lu mu ko musaan tere ca lay bàyyi fu mu ko tegoon fa la koy fekk ba keroog mu ñëwaat léegi nag loolu dafa xaw a manqué ci xale yi léegi léegi da ngay wax ki nga jur sax da nga koy wax toogal fii xaar ma boo ñëwaatee doo ko fekk wala nga liggéey ba koo liggéeyloo dara mu ne fa di di di diital naan la dama amul jot damay dem fee papa nangam papa lii léegi daal loolu manqué na daal ci Sénégal ba nga xamante ni fi mu nii daal pour nga wéññi xale yi daal yombut waaye nag ñu gën cee góorgóorlu bu baax a baax di leen gën a soññi ci yoon wu baax ndax fi mu nii yoonu baax xotti ko yombut mën nga ko commencé waaye pour nga àggale ko du yomb waaye nag liñ ci jéem a góorgóorlu bu baax a baax. ñoo ngi leen sant bu baax di leen gërëm seen taxawaay ci bisu màggal bi. waaw kilifa de fi mu toll ni manqué moom moom daanaka jéggi na dayoo ndax daanaka fi ne jikko yi ñoo yàqu waaw dañoo war defar jikko yi dafa yar moo tax jàng itam boo jàngee da ngay am ab yar amit teggin defar sa jikko mooy tax foo dem man faa de koo dem mën a jaxasoog moom bu jikko yu baaxut dara sotti xol bu rafet jikko ju rafet. moo yor lislaam ak yar loo jàng-jàng te amob yar boo yoruwul rek yaay maanaam mën naa mën naa boole ak yar ba sa jëmm def la loolu bëgg ci def kon nag yàlla na yàlla defal ay teggin ak ab yar ak muñ ak dal ci barke Borom